bonjour dal leen ak jàmm ci seen site bi di VIPPeople.net people point net ak vip ñu indil leen li gëna fess fës ci yéenekaay yi tay ci altiné ñaar fukki fan ak ñent ci weerum août atum 2020 li gëna fess fës ci yéenekaay yi mom lañuy tambalé kay y di l'évidence a ci bu ñaar fan ak ci 2020 les aventures prodigieuses de Tass Tass nak su ko déggé muy kan Alassane Sall Alassane Sall le Chapatin nouveau est arrivé y y l'évidence xamal na ni que Alassane Sall fi euh, ministre bi jité won lepp ci énergie qui moko fessel di Moïse Sar secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur Moïse Sar Dal Cardio, yooyu la yëkkati teg ko ci ndoddu ki di Thierno Alassane Sall. batay ci l'évidence gis nañu ki di Biran Wan mi ngi chargé di directeur du commerce de l'extérieur Biran Wan Dal chargé nako lan la ko chargé na gestion bu mu gérer commerce intérieur Bobu, manam dara baxu ci lépp c'est catastrophique manam qui di Biran Wan mo chargé gestion catastrophique bu commerce intérieur. ba tey suñu sukkandikoo ci l'évidence mi ngi xamal ni dafa am benn acharnement boo xamante ni am na ci ministre bi di Abdou Karim Fofana Abdou Karim Fofana nag dañ jàpp ni que acharnement moo am ci ku moom mais ginnaaw bi acharnement boobu amee kii di Modou abi Mbacké moom génn na wax ay dëggam nee na daal lépp loo xamante ni ñi ngi koy wax ci Abdou Karim Fofana lépp ay acharnement la suñu sukkandikoo ci yene kay bi di Sud Quotidien li ñu gën a fësal ñu ngi xamal corruption dans la magistrature gis ngeen fan yi ñu génn yépp ñu ngi wax corruption boo xamante ni am na ci wàllu magistrature bi ba di magistrat bi di euh, Amadou Yaya Diallo accusé ki fi ben magistrat de corruption jàppale ni lija l'IJAP à la recours madame ministre de la justice ubbi na enquête nee lepp lépp lu ñuy wax ci corruption bi dafa bëgg lepp leer manam dal enquête dina ko ci walu corruption bobu nga xamanteni ki di Amadou Yaya Diallo mi ngi ko don tumal ben natangom magistrat. suñu jegee ci Sud Quotidien dañuy dem ci yéenekaay bii di Direct News lu mu gën a fesal tey ci yéenekaayam nee na financement fantôme des jeunes et des femmes jam nañu baaraamu tuuma daal kii di directeur u deer nee nañ daal ay financement yoo xamante ni financement fantôme la yoo xamante ni jagle woon nañ ko pour euh, Euh, jeunes yi ak mais il y ay financement fantôme la financement fantôme nak peut-être dañuy créer ay di mais joxuñu ko jeunes yi joxuñu ko ndaw yu jigéen yi kiko direct news patay suñu sukkandikoo ci direct news ñi ngi laajte ben question bo xamanteni où sont passés les 100 milliards de francs CFA que la DER a dû injecter en deux ans chez les jeunes et les femmes Mme lu tollu ci milliards dal di DER injecté nako ci jeunes yi ak yu yi direct news nak mi ngi milliards la jaar le pape de la DER aura réussi à berner son monde à coups de com car le Sénégal n'a jamais compté autant d'ambulants maanaam suñu jappé dal ci directeur la DER bi dafa berner Sénégal yi ci la communication mais gis nañu ko Sénégal ambulant mo fi ëpp que ñoo xamanteni ñi ngi liggéey ba tey suñu sukkandikoo ci direct news mi ngi ñuy xamal ni que sorti ministre bi di Zahra Iyane Thiam sone woon na alerte xamle woon na ni que DER bi maanaam liñ koy financé jaarul ci yoon am na loo xamante ni ay luubal ñi ngi ci ki ko fesal nag di yéenekaay bi di direct news. ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di direct news ñu ngi ñuy xamal indiscipline et agissement contraire aux intérêts de l'APR maanaam gis nañu daal benn euh, yaradiku boo xamante ni am na ci biir parti APR muy agissement yoo xamante ni kii ko def di Bara Ndiaye kii nag di Cheikh Ndiaye di responsable APR nekk foofu ca Grand Yoff nee na commissaire de discipline bi war nañu autosaisir ci kaawu Baara Ndiaye bi nga xamante ni yaradi ko bu ma sëkk la wonee ci biir APR ki ko fesal nag di yéenekaay bi di direct news du samay kàddu kaddu Cheikh Ndiaye la di responsable APR foofu ca Grand Yoff suñu jógee foofu dañuy dem seeti bi di l'info lu mu gën a fësal après la tabaski pénible maanaam jàpp nañ tabaski bi pénible lool ba digestion est difficile trop pour certains ménages Madame, famille yu bëri soo pour ñu digérer métti na trop ndaxte tabaski bi dafa pénible On ci ñoom ki ko fësal l'info ba tey ci l'info mi ngi xamal lépp lu jëm ci wàllu importation bi gis nañ ci benn baisse boo xamante ni toll ci 3,9 pour ci prix depuis mu weeru juin bi bu mu taxawee ba tey maanaam une baisse de 3,9 pour cent des prix en juin. suñu ñu jógee ci l'info dañuy dem ci yéenekaay bi di réew mi quotidien li ñu gën a fësal tey ci seen yéenekaay altine ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru août maanaam série de drame la ñu bind maanaam un week-end sanglant maanaam week boo xamante ni na dara trop ndaxte su jàppee un ancien du MSDC. dañ ko rey foofu ca Casamance muy ancien boo xamante ni mi ngi bokkoon ci MFDC rey nañ ko ca Casamance suñ fa jógee ñi gis benn commerçant sénégalais boo xamante ni reyaat nañ ko foofu ca Gabon suñ fa jógee ñi gis benn automobiliste boo xamante ni dafa jël pistoleem fekk benn taximan foofu ca Pikine dóor ko ci kawam lii tamit di beneen kawtéef boo xamante ni doy na waar trop ci weekend bi muy benn père de famille boo xamante ni dafa rey soxnaam ba par rey doomam boo xamante ni ci benn at lam ba noppi moom mu jël boppam takk buum daal di pendre boppam mu xaru mu doon lu doy waar loo xamante ni am na ci weekend bi beneen xale Il y a un camion qui ko rey ca le di quotidien moo mu week-end sanglant week-end trop fi si suñu Sénégal ba tey suñu sukkandikoo ci réew mi quotidien ñi ngi xamal wàllum nitrate ñoom bi nga xamante ni ñi ngi doon naan dañ ko exposé foofu ca port te mu mënoon indi ay jéye yu bëgg a mag si si Sénégal ba su explosé woon dinañ am irritation pulmonaire ba nga xamante ni tàkk-tàkk bi mën a dem ci lu toll juróomi kilomètre ne woon nañu nag nitrate boobu Sénégal moomu ko dañ ko waroon transité Mali la waroon jëm jàppale ni ko jamono jii ñuy wax ngeen produit boobu expédié ni ko dem na yoonu Mali ma ngi ca yi escorté nañ ko maanaam génn na pooru Ndakaaru jàmm ak salaam amatina biir Ndakaar jërë ngeen jëf ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di réew mi quotidien ñi ngi xamal kii di IBK di Ibrahima Boubacar Keïta nekkoon fi njiitu réew foofu ca Mali ginnaaw ñu ko déjjatee ci fauteuilam boobu CEDEAO nag ñi ngi doon def tout pour ñu delloowaat ko ci fauteuilam boobu waaye Ibrahima Boubacar Keïta nee na leen waxuma leen euh, dellu ci fauteuil bi waaye benn seconde dootuma ko toog foofu ci Mali pour jiite ko lu tax Ibrahima Boubacar taa wax loolu moom dong moo ko xam suñu sukkandikoo nag ci Guinée ak Côte d'Ivoire ñoom nañu jàpp ni que ñu ngi toog ci banc wu sursis ndaxte la dal Mali mën na ñëw ci seen dëkk ndaxte Alpha Condé dafa bëgg a def troisième mandat ak kii di Alassane Ouattara. ba tey dañuy dem ci yéenekaay bii di critique lu ñu gën a fësal ñoom it nee nañu corruption l'État rouvre l'affaire Oumar Gaye. Madame dafa am commission comment xamante à mon na mais état bi ubbi affaire Oumar Gaye. le temple de Timis en alerte temple de Timis en alerte nag suñ ko waxee maanaam mi ngi jëm ci magistrature L'affaire de corruption présumée qui secoue la cour d'appel de Kaolack met mal toute la magistrature en optant de saisir l'IJAT pour une enquête le garde des Sceaux agit pour la sauvegarde de la crédibilité de l'institution judiciaire ginnaaw dal biñu jiné walum corruption kooku jité won fofu cour d' appelu Kaolack bi jàppale ni que magistrature bi jamono ji ñu tollu ñom ñep dañu nek en mal motax ki di ministre de la justice du Malik Sall mom nak agir na néna dafa bëgg ñi sàmm lépp lo xamanteni crédibilité boo xamanteni jëm na ci institution judiciaire ba tey suñu sukkandikoo ci critique ñi ngi xamal ni que le Sénégal au chevet de Banjul ginnaaw bi coronavirus bi dalee foofu suñu naataangoo yoo nekk foofu ca euh, Gàmbi muy euh, Banjul foofu ca Gàmbi le président Macky Sall jël na docteur am yu gën a mag muy euh, professeur Seydi ak docteur so yóbbu leen foofu ca Gàmbi pour ñu jàppale kii di doomu Gambien yoo xamante ni ñu ngi foofu ci wàllu feebar bi di mbas bi ki ko fësal di yéenekaay bi di critique suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di tribune di yéenekaayu des médias li ñuy xamal ñoom ci seen xët bu njëkk tey ñi ngi defal nataalu ñett ñii muy papa joo xamante ni dafa rey soxnaam ba pare rey doomam ba pare pendre wu muy kan Cheikh kan Cheikh kan daal ñaawteef boobu la def foofu ca Tiwaawan maanaam Cheikh Kane tu sa femme sa fille et se donne la mort ngi fësal nataalu Cheikh kan ak doomam bi mu faat ak soxnaam si te su ngeen jàppee ni ko soxnaam su ngi toll mi ngi toll woon ci ñaar fukki at ak juróom doom ji mi ngi toll woon ci benn at muy ñaawteef boo xamante ni doy na waar daal xamuñu lan moo ko jàpp nag ba mu faat doomam ji ak soxnam si waaye li jaaxal ñëpp bi ñu ñëwee dañu fekk Cheikh kan buum bi mi ngi ci baat bi ba pare doom bu mu faat tëdd ci kawam ndax Cheikh kan dafa xaru wala kat moo tëral doom bi ci kawam doy na waar yaakaar naan daal enquêteurs yi dinañu ko leeralal ba tey ci tribune ñi ngi xamal lépp lu jëm ci gestion ci secteur énergétique bi maanaam jëm ci wàllu électricité bi jëm ci wàllu gaz ak essence après Powercom razzia des chinois à la Senelec maanaam chinois yi daal indi nañu seen razzia jëmale ko ci Senelec ginnaaw bi ñu jógee ci Powercom kay bi di l'exclusif lu mu gën a xëyee tey ci yéenekaayam mi ngi xamal nébuleuse et népotisme dans la gestion foncière jàppale ni que daal waa Bambilor dañu rebelle wu contre seen maire bi di Njaañ Diop Njaañ Diop daal waa Bambilor kontaanuñu ci moom maanaam lu mu gérer ci seen suuf boobu yaakaar nañu daal nga maire di Njaañ Diop dafa jël seen suuf di ko pasar pasare di ko jox ñu leen neex moo tax population euh, Bambilor bi jóg rebelle wu contre moom qui ont côté l'exclusif l'exclusive la nébuleuse et népotisme dans la gestion foncière à Bambilor su ñu demee ci yéenekaay bii di lii quotidien te suñu naataango bii di Babacar Dione jiite ko lu ñuy xamal coup de gueule nos enfants méritent mieux maanaam ñoom daal coup de gueule la ñu xëyee tey xamal ni ko suñu doom yi mérité nañu lu ëpp lii ñu dem fële guerre des magistratures ñu ngi ñuy xamal ni ko notre justice est-elle crédible ki samp laaj boobu nag di lii quotidien nee na justice u Sénégal tey est-ce que crédible na est-ce toll na foo xamante ni lu mu wax askan bi dina ko gëm wala du ko gëm laaj boo xamante ni ki ko samp di lii quotidien ba tey suñu sukkandikoo ci lii quotidien ñi ngi xamal ni que ñaawteef boobu xew foofu ca Pikine jàppaleen daal Pikine foofu daal dafa am benn waay boo xamante ni lu mu fa joué man daal li maa ngi ko doon seetaan ci ay film western en pleine rue si diggu mbedd bi la individu bi ubbee otom jëm ci taximan bi génnee sox bi nekk ko ko tuy doy na waar gis ngeen kaawu Ousseynou Diop ni mu fi defoon taximan bi ba ñuy tëj ko fukki at ak juróom yaakaar naa ni kii jàngul leçon ci na fukki at ak juróom yi moo tuuti moo tax mu génnee pistolem ban dëkk la ñu nekk Sénégal la ñu nekk wala New York la ñu nekk wala Los wala Texas jar na laaj lii tamit di beneen kawteef boo xamante ni ki ko fesal di bi di lii quotidien pour une dispute banale elle découpe son camarade à coupe-coupe maanaam si dispute maanaam wax bu ñàkk fayda moom daal jaaseem la indi rek jàpp ku mu doon xulool ne ko daggit xatet mel ni ko yàpp di dagg doy na waar Sénégal bi toll daal war nañu xoolaat jikko yi xoolaat nit doxale suñu démé ci Kai bi di Vox Populi Vox Populi nak luñu gëna fessel ci seen tay muy ki jité Sénéra Qui jité Sénéra nak bi fi euh, télévision RTS ba nopi mu donon fi ambassadeur Sénégal Washington mo Sénégal jité Sénéra xamal nañu ko Babacar les comptes yan pour vendre les gens

doy na waar maanaam émission bu mel ni tës ak xalaas nee na daal doy na waar donc émission yooyu di tës ak xalaas nañ jàpp ni que ñu ngi ci banc des accusés rawatina série bii di infidèle te seen TV di ko teg war nañu xoolaat bu baax a baax lu ñuy war a def ndaxte jaay warul tax nga fàttee sa valeur fàttee sa morale fàttee sa askan ba pare bëgg a lor sa peuple yëpp ndaxte jamono ji xale yu ndaw yi ñooy nekk ci télé yi koo nee moins de 16 ans kenn mënul contrôler kii seetaan ak ku dul seetaan ndaxte magum mën na fagaru mais xale dafay foog ni lu mu gis ci télé baax na kon donc jot na Babacar Diagne jël yat bi teg ko ci kaw ñoo nga xamante ni ñu ngi bëgg a yàq suñu Sénégal ki ko fesal nag di Vox Populi ba tey ci Vox Populi ñu ngi xamal ni que kii di Cheikh kan moom ba mu def drame ca Tivaouane aurait tué sa femme et son fils avant de se pendre aurait nag la ñuy wax aurait maanaam soo ko déggee mooy conditionnel maanaam leeru leen wóoru leen ndax Cheikh Kane moo rey jabar ji ndax moo rey doom ji maanaam balaa muy xaru en tout cas ki ko fesal di Vox Populi Bataille qui ci Vox Populi suñ fa sukkandikoo Magbi, ngi gis avocat bu mag bi du peuple di maître El Hadj Diouf ci ginnaaw janoo bi mu doon groupe Futur Média je suis mouride mais je n'irai pas au Magal nee na coronavirus bi amna, ak li ñuy tere magalba. moom mii la waye du dem ba ni bi bu mu euh, virus bi dalon ko ba yalla musal ko ci ba mu wër néna dal je suis mouride mais je n'irai pas au Magal lool nak muy message bo xamanteni ki di maître El avocat du peuple moko wax ci populaire ba tey suñu sukkandikoo ci libération ñu ngi xamal ni que une lettre retrouvée sur les lieux laisserait à penser que Cheikh Ahmed Tidiane Kan a tué son épouse de 25 ans et son bébé d'un an avant de se donner la mort par pendaison ginnaaw bi ñu leen fekkee foofu nag am na benn lettre boo xamante ni fekkoon nañ ko fa mais ci lettre boobu suñ ci sukkandikoo dañuy jàpp ni que Cheikh Ahmed Tidiane Kan bi moo faat soxnam ba pare faat doomam balaa muy faat boppam kan mooy Cheikh Ahmed Tidiane Kane libération mi ngi ñu koy xamal fii ci xëtam bu njëkk bi Cheikh Ahmed Tidiane Kane qui a organisé des chants religieux jusqu'à tard dans la soirée ne présentait aucun changement selon des témoins ginnaaw bi muy def ñaawteef boobu moom moo organisé woon benn ay jàng yoo xamante ni moo ko jàng foofu ben ba mu guddi lool te gisuñu woon mu présenté wu benn changement ci kawam ki wax nak mais suñu police scientifique police scientifique dal relevé wul le signe bo xamanteni caractéristique la bu ni que Cheikh Ahmed Tidiane kan def dafa ray police scientifique bi fessel Libération Quotidien ba tey ci libération quotidien ñu ngi gis ni que kii di muy Sarr mi ngi débale muy Sarr nag moom moo jiite sénégalais de l'extérieur yi ginnaaw bi Thierno Alassane Sall génnee livre am boobu sur l'ancien muy ancien ministre de l'énergie Moïse Sarr daal génn na def ay déballage déballage yu mu def nag mi ngi ko def ci kii di Thierno Alassane Sall su ñu demee ci wàllu tàggat yaram dañuy seete yéenekaay bi di réew mi sport réew mi sport lu ñu fësal maanaam ci seen yenekaay bi muy nataalu Neymar Neymar boo xamante ni il était désolé ndeysaan jël loxo bi taf ko ci kanamam di jooy lu tax Neymar di jooy nag ginnaaw seen yaakaar bi tas ci kanamu Bayern Dominique muy final boo xamante ni Ligue des champions la PSG doon ko gént ay ati at ba egg ci tey war ko jouer kan moo ko daan muy Bayern Dominique moo ko daan ci benn but ci dara maanaam la grande désillusion pour Ghana et Paris Madame Paris daal dañoo am mbetteel dañoo am naqar ak tiis ginnaaw bi ñu ñàkkee finalu Ligue des champions boobu démb ci kanam Bayern de Munich bu Allemagne. ba tey suñu sukkandikoo ci kay bi di Rémi Sport ñi ngi xamal mercato des Lions ki di Edouard Mendy di Golu équipe nationale bu Sénégal Chelsea dal mi ngi koy bayyi beut mi ngi koy xol Edouard Mendy dal su ngeen dina dem fofu ci Chelsea ci Angleterre. Bataille qui réunit réew sport ñi ngi xamal élection bi jëm fédération ivoirienne de football la FIFA donne raison au camp de Drogba Qui di DJ Drogba nag nekkoon fi attaquant Côte d'Ivoire dafa sampoon euh, ndëndëm pour nekk foofu ci président fédération Côte d'Ivoire de football jàppale ni ko FIFA jox na ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di record sport ñoom it ñu ngi xamal ni que Rennes aurait donné son accord transfert de Mendy à Chelsea kon jàppale ni que Mendy boobu daal ren joxe na accord su ngeen sàgganee Edouard Mendy di ngeen ko gis foofa ca Chelsea mu taxaw ci seen camp pour góolul leen ba tey dañuy dem ci record ñu ngi xamal lut xalifa le manager du troisième tigre de face, manager manager Gris Bordeaux que Gaston paye ses 15 millions à Gris Bordeaux Gaston Beng na jël millions à yoral Gris Bordeaux fay Gaston nak nataala mi ngi mi ngi joxoñ baramam, kan lay Gaston Beng mom. Loko wax mu Gaston Beng, ba tey suñu sukkandikoo ci record ñu ngi woon fii équipe totale boo xamante ni bu Bayern Munich la seen natal nekk fii muy Ligue des champions le Bayern brise le rêve du PSG Bayern daal maanaam tas na yaakaaru Paris Saint-Germain maanaam ci final bi ñu yaakaaroon mooy doon premier ba xalaatoon ni que seen maillot dina am benn étoile waaye xëy na beneen at lay doon ren waaye du doon ren jaam ak pexem yàlla ak dogalam yàlla li mu dogal mooy Bayern mooy finaliste Ligue des champions. suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di suñu lamb ku ñu gën a fësal maanaam tey ci seen. Kayou altine bi muy natalu Kidi di Balla 2 le lion de Guédiawaye le fils de Double ak boynia di lobby pour gâcher boynia tafatine et gri aigri Balla de maanaam dafa am ben lobby dal bo de dañu pour yak combat bi wara dox ci diggante et Bordeaux ak Balla un promoteur véreux voulait Balla et Boy Niang am na daal benn promoteur boo xamante ni dafa bëggoon Balla Gaye ak Boy Niang ñoom daal la yaakaar ni que moo nekk ci suuf pour yàq combat yooyu ngallaawaay su dee yàlla dogal na ko Boy Niang day bëreeg Tapha Tine yow promoteur bi gëmal yàlla te nga bàyyi combat yi dem. ah jaam ak pexem waaye yàlla ak dogalam de li ngay nat xëy na yàlla du ci egg ku ko fesal nag di yéene kaay bi di suñu làmb. ba tey dañuy dem ci suñu làmb ñi ngi xamal soutien à Mbaye Guèye paralysé Mbaye Guèye nag moo fi njëkk nekk tigre de fas maanaam dafa paralysé mais nag kii di GIA casque na lu toll ci quatre cent mille francs indil ko kii di Mbaye Guèye pour jàppale ko ci feebaram jooju muy geste boo xamante ni rafet na trop ñi koy ñaan aussi ci yeneen mbëru faas yi ndaxte ginnaaw tey suñu mënee taxaw mbay Guèye gis nañ ko mu leen di taxawu saa su ne kon mbay Guèye amee ay jafe ci wàllu wérgu yaramam ba GIA yëkkati quatre cent mille mbër bu nekk war nga xool loo mën nga yëkkati nga teg ko ci loxo Mbaye Guèye comme ni ko Iran Ndaw defalee bërki démb kii di famille Ablaye Mbaye ba ñu génnee këram mu dajal lu toll ci 14 millions pour jënd kër gi bañ ba pare ñeneen di indi seen xaalis di ci def pour ñu jàppale yaayu Ablaye Mbaye am fu mu dëkk ndaxte yéene Ablaye Mbaye la woon balaa muy génn àdduna ba tey suñu làmb mi ngi xamal kii di départu Alioune sar le 31 octobre Matar lui prépare un sargal daje ginnaaw bi gars yi doon xeex ñu ne Aliou sar na jógee foofu ca boppu CNG ba jàpp leen que allah 31 octobre bi lay Alioune sar di jógee ci boppu CNG boobu mais nag kii di ministre du sport di Matarba Ba mi ngi koy sargal bu mag a mag a mag gëm naa ni bés boobu moom tuq lay doon ba tey suñu lamb mi ngi xamal ni que kii di Songane progression ginnaaw bu mu amee onze victoires ak 8 défaites jamono ji gis nañu ci progression bu mag a mag la nekk ku fesal nag di yéenekaay bi di suñu lamb jërë ngeen jëf ginnaaw bi ngeen dégloo li gën a bi si site di vip people point net ak vip info point net di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm di ñaanal ngeen yendu ak su ngeen abonné ba bu cloche de notification bi ngir jot yeneen vidéo bi ngir jot yeneen vidéo